jërëjëfe borom Touba est-ce que borom Touba Serigne Touba mut morom bokku jullit yi bokki taalibe yi ak yu Touba TV sen bokku taalibe Mame Mor Mbaye yoonu gi mi ngi leen di nuyu ci ëtt bi mu leen baax nuyo muy émission Café Touba gis ngeen gis ñu leen koy defal ci télé bi waye léeg-léeg def ko émission décentralisée décentralisée moy tok ba Café Touba nit ñe koy fekk si ci télé bi waye mu tok ba yàgg fekk ji nak mouride yi da ciy bax tey nag gis ngeen defe nañ ko daaru xafoor defe nañ ko kër sëñ Modou Faa Jamañang defe nañ ko ëttub sëñ Abou Mbacke Madiana defe nañ ko fa nga xamante ne mooy kër sëñ am Amsatu Jaxate ak yeneen ak yeneen ak yeneen bisu tey bii nag nu fa séenee ma ànd ak Serigne Moustapha Kane tey mu doon sama consultant waaye ñu ñëw fii ci kër euh, ëttub euh, Cheikh Mourtada moom Serigne Fallou fi la ñuy enregistré émission bi fii ci 28 waaye di Touba nu fa séenee nag. tey kenn ci jàmbaari Serigne Touba yi nekk lieutenant muy Cheikh Ibrahima Sëy mi nga xam ni moom meññ Serigne soxna jumaa Sëy moom mi nga xam ne moo meññ Serigne Mourtada Mbacke ak soxna maam Faati Mbacke moom sëñ Fallu ak Serigne Iddaali Mbacke waaye loolu li tax nu nar koo indi nag mooy day murit boo xam ni waxtaane ko tey day am lu mu def ci murit yi ndax di ngeen gis tey nu wax ne moom day feeñalaat na benn lef woo xamante ne war naa tax nu xamaat ne Serigne tubaa moom cem soo ko xiyaas mu yées ko waaye place boo ko wutal mu fees ko. tudde na galwaa doom te galwaa lambar na la ne xëy na danañ ko yaatal léegi ci kanam lambar na mooy dëkk ba galwaa di xeet wa fa ne man dem naa fa waaye tudd nañ galwaa tudd sëñ bi rek mu gis ko ci mbindi sëriñ bi rek mu tudde ko doom. lambar na ga nekk ca Gabon nga xamante ne sëñ Touba nee na maa fa jëkk jaamu sunu borom bu taalibeb Serigne Touba tudde ko doom kon xam ngeen ni sëñ ba fa demoon la moom Cheikh Ibrahima Sëy mi moom it def na ko ak yeneen ak yeneen yooyu xam naa dama koy ubbee émission bi rek ba nu bëgg a xam ba nit ñi seetaan xam ni tey xoolaat feneen wóoru na ñëpp jàpp seen télévision Touba TV balaa fàtte di dugg naa bàyyi sëñ sa Fakkan dina ma indil moom it ab nuyoom ñu doog a ñëw nag ci ñi ma séqal plateau bi ndax ñi kii kii ma tudd muy Cheikh Ibrahima Sëy ay sëtam rek a nóor kon yaakaar naa ci kanam tuuti di ngeen ko xam sëñ Moustapha nu bàyyi la nga nuyoo maa ngi ànd ak nag Serigne Jibril Xulle mi nga xam ni moo nekk fii fi Touba moo sëñ nu Mbodj waaye nag di tasaare mbindum Serigne bi te loolu lépp rek mooy liggéey sëñ Touba noo ngi ñaanal ci émission bi nag sëriñ Serigne Mountakha yàgg fi te wér waaye di ziar baax Serigne Mourtada Mbàkkim sëñ Fàllu buntam muy sëñ Abou Baraka ak mboolem njabootug sëñ Touba gépp ak yàgg wér ci barke Cheikhul Khadim sëñ Moustapha jërëjëf euh, sëñ Mame ci nuyoo bu am solo boobu nga nuyoo noo la koy delloo bu baax di nuyu euh, njabootug sëñ tubaa gi ñu toogal euh, ku ci mel ne Cheikh Mouhamadul faadal sëñ Fàllu mii mu sëñ Mourtala moom sëñ Fàllilu ak mbokkam mu baax mi mu dendal sëñ Galas moom sëñ Yiddaali di siyaare sëriñ Moustapha njaay mu baax mii moom soxna Maam Faati Mbàkke mu sëriñ Fàllilu ak ñu baax ñii nga xam ni ñoom nga war a dalal tey jii mu mel ni xat faak kabla ak ahmadou mohniyen loolu nag niñ ko baaxoo dégg sëñ Mamour ay téere ci lañ naan naan dégg waaye nag jëmm yi ñoo nekk nii la ku baax ko waxoon sëriñ ba rek ni alxuraanul karimkat kat bi ko suñu borom wàccee niñ ko baaxoo xamee mooy mu nekk ci feggu yi ñu di ko jàng waaye jëmmi alxuraan nag mooy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul loolee la maam Ibrahima Sëy taalibe bi sëñ Tuubaa bu baax boobee daal di indiwaat fii ci kër Serigne Touba kon noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare Cheikh Mouhamadou Mourtada mu Serigne Fallou mi nga xam ne ci këram la ñu nekk ak mboolem njabootu gi sëñ Mamoor di tëkk foofu suñu kaddu rek ba dellusiwaat incha allah rabbi bisimilah. jërëjëfati Serigne Moustapha Kane euh, ci nuyu bu am solo boobu. Mhm. Euh, waxtaan wi nag maa ngi ko séq ñi nga xamante ne maag Serigne Moustapha mi. Mhm. mooy Serigne Modou Mbacke mi nga xamante ne mooy taaw Cheikh Mourtada. Mhm. di sëtub Serigne bi Cheikh Ibrahima Seye. waaye tamit ak euh, Serigne Fallou Mbacke. noo ngi koy siyaar baax a baax moom sëriñ Mourtala moom sëñ Fallou di siyaar sëriñ Fallou Mbacke moom sëñ Idali moom sëñ Fallou waaye di siyaar sëñ Moustapha Ndiaye moom soxna maam Faati Juma. waaye nag ñaar ñi nga xamante ne nag eh, xam naa ni tur yi moom lu raar la ci yoonu murit xaside yi nag murit yaa ngi koy jàng waaye ne tudde jëmm yi ay doom nga xamante ne eh, seeni wéy jur lañ leen tuddee sëñ Ibrahima Seye tudde woon leen ko mhm. mooy sëriñ Ahmadou Mouhniyan mi ngi nii moom sëñ moom mi nga xamante ne mooy doomu imnam ni abdullahi faaxa kulla man nga xam ni xoolal loolu moom mooy doom yi imnam ni abdullahi mu sëñ ibrahima sëy ak ki nga xamante ne mooy xat faaka kabla moom aynu rahmati aynu rahmati sëñ ibrahima sëy tuddee na ko doom kon yaakaar naa ni sëñu safa loolu rek doy na ci sëkk waa kii kon li may bàyyi rek bàyyi ak sëñ ahmadou muhniyan sëñ Moustapha mu ubbil ñu jotaay bi sëñ ahmadou muhniyan dañ lay bàyyi ci sa nuyoo rek ci ngay ubbee ci jotaay bi dañoo bëgg xam kan mooy Cheikh Ibrahima Seye bu ñu doon wax mooy kan fan la cosaanoo ak lu ko indi ci sëñ Touba pas-pasam ci sëriñ bi loolu bëgg nañ cee xam dara loo ca rotal rek bu ñu noppee xat faaka kab la daal di àggale loolu nga xamante ne moo ci des bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu bu baax waa Touba TV di nuyu waa Café Touba di leen siyaare bu baax waaye di jiital ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké alxalifatul am li taifatil muridiya di ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ak wér waaye itam di siyaare Cheikh Abul Baraka di siyaare Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké Fadal soxna maam Fatim Mbacké Fadal ak Cheikh Mouhamadou Yadali Mbacké Fadal ah, di la nuyu bu baax sañ bi ah, di tàmbali rek ci maam Ibrahima Sey mooy kan sëñ Ibrahima Sey nag mooy ramu jaam ñi feeñ na loolu nag ñoom ñu bari ci ñoom bi ñu ko yëgee dafa am nu ñu doxee maam Ibrahima Seye moomu ca la bokk moom nag cosaanam fuuta la ndax kon dafa mel ne dañ naan euh, euh, moom ak sëñ bi sëñ bu mag bi euh, bokk nañu fu ñu jógee moom fuuta la jógee la ko la taxoon nag mu jógee fuuta moom dafa am ñetti maamam yoo xam ne dañu daan xeex maanaam ay guerrier lañ woon li ko waraloon nag mooy dafa am benn buur boo xamee ne wala benn prince boo xam ne dafa ñàkkoon nguur la ko waraloon nag mooy euh, nguur googu waajuram moo nekkoon ci nguur waaye ba mu nekkee ba waajuram ba muy waaj nekk mag dafa dénkoon ku ñuy wax benn jarbaatam la dénkoon ne ko nguur gi dénk naa la ko ndax sama doom ji bu màggee ma nga jox ko mu nekk buur kooku nekkoon prince naka noona ñi ngi koy wooyee Samba Gilaaju Jéegi mu ñuy wax Samba Gilaa Jéegi Samba Gilaa Jéegi moomu moom moo waroon a nekk buur waaye nekkoon xale waaye juróom wàcc liggéey ñu dénk nguur ga nijaayam waaye nag ba nijaay ba mu màggee am leneen lu xew nijaay jaw bëgguta wàcc nguur ga noonu nag mu doon jël ak xam amoon ay soldats yu mu ngir delloo si dëgg delloo si ak xam sol ñett ñetti maami Ibrahima maam Ibrahima Sey yooyu ca lañ bokk ñooñu ñuy xeex di xeex di xeex di xeex di xeex ba xeex bi dikk ba jolof ndax dañoo dañoo defoon ay détachement xeex ji gagné léeg ñu leen di gagné ba benn bis nag jamono Samba Gillage Diop leen euh, Fuuta danañ leen rey wala ñu jàpp leen naka noonu ci lañ ñëwee jolof waaye kajoor bi ñu dikkee kajoor nag fekk fa dammel ñaan ko ne ko ñun day ay guerrier lañ woon waaye nag ay jàng ay jàngkati alxuraan lañ dañoo bëggoon nga abal ñu fu ñu mën a nekk ci la leen yóbbu nag fu ñuy wax daaka foofu nag la leen dalal ñu koy wax tuneen nekk fukki kilomètre ak ñeent ci caytu kon foofu la leen dalal ñu nekk foofu di jàngal di jaamu yàlla ba ni ba ni maam Ibrahima Seye feeñee maam Ibrahima nag bi feeñee nag ci la yëg mbiri sëñ bi ndax foofu moom ci digg kajoor la ne te sëñ bi mbakke kajoor la wootee kon loolu am mu am ci ab dég-dég am ñu ne ab dég-dég boobu moom la am ci sëñ bi ak yëg-yëg boo xamee ne am na ko am ñu ne amul dég-dég booba waaye dafa nekk ku ñuy wax majzuub la maanaam da ko yëg ci baatin dafa yëg sëñ bi ci baatin looloo waral mu jékki-jékki yitteyam ñu nekkee woon yëpp mu xëy dagg ko daat ne maa ngi dem fekk sama sang bu baax ba kon noonu la jógee eh, Sénégal daal di wuti gànnaar loolu nag yoonu gànnaar wow nag sëñ xat fàkk ak sëy moom lañ waxoon ne moom lañ bëgg mu eh, eh, eggale ko waxtaan ci incha allah mais kooku daal moom maam Ibrahima sëy maam Ibrahima sëy nag mooy doomi biram sëy biram sëy di demba di doomi demba yoro faali sëy demba yoro faali sëy moom di doomi biraama sëy yaayam mi ngi tuddoon paan ngom waaye paan ngoom faal faal la sant ndax baayam mi ngi tuddoon isa faal kon noonu la la boo kooku daal mooy sëriñ ibrahima sëy kon baax na foofu daal la ñu yemal foofu jërëjëf euh, euh, sëñ Ahmadou Mouhniyane sëñ Mamor yaakaar naa dégg ci gàttal rek ni mu faram fàccee Euh, suñu maam ju baax jooju euh, ñan ñooy ay mbokkam ak euh, fan la bàyyi ko fekk sëriñ bi te muy lu am solo ndax nit mënoo ko waxtaane te xamoo mooy kan kon mbokkum sëriñ bi la ndax fuuta dafa yàgg ci cosaanul ñu baax dafa naa ñu baax ñëpp foofu la ñu foofu la ñu jóge ci wàllu fii ci wàllu Afrique centrale kon dañuy daal di dem directement rek sëñ Mamor ci sëñ Xat Faaka Kabla moom xam naa ni émission bi moom bu yow ma di la ci jàppale ndax yow <laughs> dëgg dëgg tubaarkàlla su ko defee yaakaar naa dégg nga li nga xam ne suñu Ahmadou Mouhniyane wax nañu ko ci suñu maam ju baax jooju lan nga nu ciy tegal rek euh, sëñ bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di jiite ci nuyoo bi sëriñ Serigne Mountakha di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi te kàttanal ko ba nim naa la liggéeyal Serigne tubaa ci tool bi sàmm yëpp suñu borom may ko ko di nuyu tamit sëriñ Aboul Baraka di ñaan yàlla yàggal ko fi. di nuyu tamit Cheikh Mouhamadou Mourtada nga xam ne mooy kilifa jataay bii ñu toog eh, di nuyu tamit Cheikh Mouhamadou Yeddaali moom Cheikh Mouhamadou Fadal di nuyu tamit sëriñ soxna Maam Fatim Mbàkke Fadilu di leen nuyu tamit eh, di rafetlu bu baax seenu liggéey noonu ko sin Ahmadou mox neen waxee nag maam Ibrahima Seye eh, daa bokk ci ñu yàlla defal tawféex bi sëriñ Tuubaa wootee mu wuy ji yàlla defal ko tamit euh, mu baaxe ko jéego yu nga xamante ni ay yonente daanañ ko jéego muy gàddaay moom nag bi Sëriñ Tuubaa wootee ba tukki jéeri ji mu dem euh, Murtani euh, daa gàddaay ay mbokkam yi ax ma doon wax nga xam ne ba mu leen gàddaayee fekk Sëriñ Tuubaa Mauritanie mboolem dëkk bu Sëriñ Tuubaa nekk Murtani rek ne na fa muy sarsaara jaariya xumaag waaye bi mu nekkee Tuneen di wuy ji woote Sëriñ Tuubaa boobu daa am eh, ñu nekkoon ci dëkk ba di eh, fekki Sëriñ Tuubaa sarsaara mu ànd ak ñoom bi mu demee ba yegg eh, ñooña ban joxee seen bopp Sëriñ Tuubaa moom mu joxe boppam ñooña ba ni dellu Sëriñ tubaa dañu leen kii bàyyi leen ma ko fi dama koy liggéey loo Euh, nin ko xamee Sëriñ Tuubaa mag ñi ko toppoon ñëpp kenn ku nekk am na num la daan tarbiya am na num la daan tarxiyaa moom nag yàlla def Sëriñ Tuubaa tànnal ko euh, liggéey boo xamante nii mm. yonente bu yàlla mos a yónni rek def nga ko muy sàmm yonente bi nee na amul yonente bu yàlla mos a yónni ni sàmm nga daane ba ci mën mi sax daanaa sàmm ñu di ma fay euh, métier moomoot métier la moom te ni yàlla da daan tàggat yonente yi comme mission bi mu leen jox dafa dafay dafa rëy te sàmm jumtukaay la boom ti ni dana ci tàggat yonente yi ngir euh, ñu mën a toggoo ak muñ toggoog coona métier moomu la wala liggéey boobu la Serigne Touba tànnal ma Ibrahima Seye sàmm googu nag euh, euh, yaatu na waaye fa tàmbalee sàmm gi mooy jur gu fa Serigne Touba amoon. Eh, la ko fa Serigne Touba doon sàmmloo kon mën na ni Serigne Ibrahima Seye moo doonoon sàmmkatub Serigne Touba. ci ak juróom. waaye du jur kase danañ ci ñëw. Mhm. Eh, jur googu tamit ba muy nekk di ko sàmm eh, jëlee nañ ci suñuy baay muy aynu rahmati inaam abdullahi bu daan xëy di sàmmi da daan wax ni liggéey Serigne Touba amul wàcc nga xam ni bu ra bu xëyee dem sàmmi ci àll bi falay nekk. ba jant soo mu soog a dellusi te it euh, wax nan ni ci euh, ñax gi nekk ci àll gi la daan xéwloo. Hmm? sàmm googu tamit yëmale ko rek ba mu nekkee Murtani waaye bi mu nekkee euh, bi Sëñ Tuubaa nekkee Ceyeen nit wéyoon na di sàmmal Sëñ tubaa ak jur foofu nag ci la nekk di liggéeyal Sëriñ tubaa di ko sàmmal ba foofu am na bis mu sàmmi ba waxtu wi mu daan baaxoo ñëw bu jant sowee waxtu woo jot ñëwut e, jur gi ñëw e, bi nu ko laajtee gisuñu ko ñu yëgal ko sin bi sin bi yeble ni nan ko xooli foofu e, boo fekk na sëriñ am satu jaxate ban demee ba xooli ko sëriñ am satu jaxate ban demee ba xooli ko ban ko xoolee daal boo pare dañ ni kii moom bàyyi koo na fi li ma lay wax nii nag koo dem ci njabaruk sëriñ Amsatu Jaxate gi dana la ko nettali ah, lii ñu lay waxit xista bi ñu bëgg a nettali sëriñ Amsatu Jaxate ma nga xamante ni fekk woon na mbir mi nekk témoin oculaire nga xam ne sëriñ bi moom la yabaloon nettali na ko suñu bàyyi inna am na abdallahi nettali na ko sama bàyyi rahmati man mii mu nettali ma ko nettali ko ñu bari hmm? ban ko xoolee ni bàyyikoo na fi bu daan xëy da daan wax ni liggéey Serigne Touba amul wàcc ban koo waxee dikk ni ko Serigne bi Ibrahima si kat xool nañ ko waaye mel na ni dafay bàyyikoo sëriñ bi ni leen kooku dama koy liggéeyloo te wàcceeguma ko daa di dugg ci biir bind xasid ak inna ibna abdallahi faaxa kulla laman ab daaw bi di xaale ko saman jox ko Serigne Amsatu Jaxate ba ko joxe Serigne Amsatu Jaxate daan ne ko def ko saafara fu ndox mën a dugg nga dugal ko fa sëñ Amsatu Jaxate nee na ma jël xasida gi euh, xam ne njariñ la ma sotti ko jël gi ma sëriñ Tuubaa jox ma xooj ko nee na ñu dem defal ko ko muti sóoli ñu mu laajte lan la ñu nettale ko mbir ma nam demee euh, lii ma lay wax it bi mu demee ba sampu njaboot di am doom di di ko tudde tur yi nga xam ne danañ ci ñëw ba tuddee inna ibna abdullahi faa kulla man foofu sëñ Amsatu Jaxate wax na euh, kim tuddee inna abdullahi xasida gi ni ko tur woowu du turu daanu turu fay bor la man mii sama baay aynu rahmati nettali na ma ni sëñ Amsatu Jaxate ci boppam fay bor la moo ko wax ne ko turu woowu du turu daanu euh, turu fay bor la ndax inna abdullahi mëgut ci ay doomam bi mu nekk ak Serigne ñëw ci Euh, te sarsaara la tax mu am solo mooy euh, Serigne Touba daa tànnoon si Modou Lo Dagana ni ko komo fi wër ta fekk bu ma fekk kon su yàlla defalee tawféex maa Ibrahima Seye fekk bokk ci ñi fokk Serigne Touba sarsaara loola dañuy wax ni kon bokk na ci ñi Serigne Touba tànnee na ko fekk. Euh, kàngam yi rek a dem. waaw te ku ne xam na ne coono ba fa nekk. Mm-hmm. yow mi defe naa moo juun mos na sarsaara ña fay dem man daanaa fa dem. waaye 4x4 yi lay yóbbu Sarsara coono ba nga fay daj ci ay 4x4. Mhm. waxuma nag ba nga xamante ni ña fa doon dem dañ fa daan dem di dox ak di yanuy gaal di yut Serigne Touba. Mhm, mhm. Euh, bi mu nekkee Ceyeen it noonu la wéyoon di sàmmal Serigne Touba ak jur nekk ak Serigne Touba ba Serigne Touba jugee Ceyeen ñëw euh, Njaareem ci 1912 foofa nag. Euh, bi mu fa nekkee ba 1912 diggante ay 1912 13 14 foofu bëri na ñoom yi Serigne Touba da leen na yebal ñu dem ci ay dëkk waaye moom ma Ibrahima Seye Serigne Touba da koo woo li may wax nii sama baay na moo ko nettali euh, da koo woo euh, jàpp ci bopp bi di ñaan di ñaan ne ko demal Touba néeg ma fa. ne ko demal Touba néeg ma fa. foofa sax maanaam mooy li doon tuddee yeewi rek waaye foofa ma ko waxee woon ca buntu ba fa nekk di jooy ba waxtu wa del si ba ndikkee wax ko euh, sëriñ bi ne quoi Ibrahima Seye mais nga yebaloon Touba ka yeewee ko moom fa la toogee jooy rek sëriñ Touba woo ko laaj ko looy jooy mu ne ko man damaa bëggut a teqale ko yow àdduna ak mu ne ko duñ teqale ko àdduna ak àlaaxira demal Touba nekk ma fa bi mu ñëwee tubaat nga xam ni bëri na fu mu fi dëkkoon daaru Xuddoos fii daar Minam Euh, ba ci fii nga xamante ni fi la dëkkoon euh, mooy fi ne wax gaar bu mag nga xam ne diggam ak jumaa ji si ma sàmba doo nga fi doxoon et diggante 1913 ci ñi njëkk Touba la bokk euh, bu fi musaan a nekk wax googu Sëriñ Touba waxoon ne ko demal tuubaa néeg ma fa am na toolu tool yu mag yu mu amoon diggante gaar bi ba boo xamee Touba jàpp mbal foofu yëpp da ko daan bay waa Touba ñi fa dëkkoon ñu bëri dañ fa daan ñëw di wut si yu ni xéewloo mu leen koy may waaye boo ci musaan a jël loo ko ñaanal mu ngi la bëgguma ko boo ne ko ah Ibrahima loo bëgg mu ngi la danga man danga naan ma yàlla boo am yitte ju lay téye seen puji Touba maanaam yitte ju lay tax génn Touba lu tax mooy Serigne Touba moo ne woon demal Touba nekk ma fa bëggut a génn Touba ndax waxu jooju ko Serigne Touba waxoon ne ko demal Touba nekk ma fa ñëwee tamit euh, ba nekk Touba diggam ak Touba tamit wax wax ju ju bëri la. ndax euh, bi mu demee ba war a samp kër ci waa moo ko jox leetar euh, ni ko yóbbu ko ci maam Thierno mu jël leetar bi yóbbu ko ci maam Thierno ngir maam Thierno sampal ko kër euh, maam Thierno boole ko ku ne wax sin Ibrahima Niang ak sin Amsatu Njaay mu yebal leen ci ku ne wax sin Samba Ndaak Jóob sin Samba Jóob moo ko jox soxnaam su njëkk di soxna Faat Jóob ñu tudde ko yaay maam Thierno soxna Faati Isa hmm. moom moom la njëkk a denc foofu tamit day wane rek waa ah, wal wal barutu tey bu yaxru jëna waatu isni rabbi yi eh, njabootam gi nga gis ñoom ñëpp ñi leen meññi ci ndëgal Sëriñ Tuubaa la leen jëlee eh, mu ca turam yu barkeel yooyu nag nga xam ni kam ci njëkk a am eh, xasida gi Sëriñ Tuubaa tudde Matlabul nii nga xam ne boo ko jàngee ba pare loo ci teg mooy amiin mu tudde amiin googu nga xam ni maanaam nangu ñaanuk sëriñ Tuubaa sax amiin mooy taawam bu jigéen amiinuk sëriñ bi waaw amiinuk sëriñ boobu moom fi soxna Aminatu Waa moomu sëriñ Aafiya ñang euh, mi bokk ak sëriñ Fàllu way jur bokkoon di liggéey ci barab bi loolu dañ ci ñëw moom yoroon na ko ban am ci ak euh, njaboot waaye nga gis ni kon bi mu ko joxee sama faju moom am ta ca moom moom soxna Fat Jóob moomu moo jur inna ibn abdullahi faaxa kulla man euh, moom moo ko jur innam ni inna ibn abdullahi faaxa kulla man ab yu diw xaariqu zaman <laughs> mooy waajur ahmadu moxon yéen mii waaye tamit sëñ Tuubaa joxaat ko leetar yebal ko ci ku ne wax sin bayti ndongo joor am mar sin bayti ndongo joor am mar euh, way juróom mooy sin maam gumba binta mataar moom ak sin paata joor ak sin ibra joor ak sin maam ma joor ñoo bokk ndey ak <laughs> Euh, ñoom Sëriñ Tuubaa fekki woon na maam sin ba kii euh, sin maam guma bitaar moomu ñaar ne moom Alaaji Maalik fekk na ko ñaar ñaar ne moom moo ko jox ku ne wax soxna Fat Njaay soxna Fat Njaay moomu way juróom ñu ngi ko tuddee sin euh, bayti ndongo jor moomu di taaw maam gumba soxna Fat moomu moom it mu am ci taawloo ci ku ne wax ahmadou mox ni yan taala an sinna parce que da ko nga xam ne Sëriñ Tuubaa na ni Euh, am na yéene amoon na yéene binde ko wurus ahmadu Muxniyan moomu bi muy feeñ mi ngi feeñe dëkk moom lañ tuddee ahmadu mi euh, mi ngi feeñee dëkk bu ñuy wax mbóojeen euh, bi mu feeñee dañ koo tuddee Cheikhul Xadim boo fekku ko fa moom ba mu ñëwee laaj gan gi nun ko tuddee moo ne Cheikhul Xadim dafa dañ sàkket wi daane kooku ëpp naa tuddee doom ëpp naa tudde doom. nar ko tudde Ahmadu bala ñoo kontaan tudde sëriñ bi waaw moom it loolu loolu yàlla da koo defal tawféex ni yàlla wege woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa xamante ni bu koy tudd du du du du jaar ci tur bi comme ni muy jaar ci tur yeneen yonente yi yaa Muhammad yaa Muusa yaa Ibrahim ah day nga gis rek mu def ko weg yaa yuhan nabiyu mhm. yaa yuhal muzammil yaa yuhal mudassir sëriñ ci waat sin faalu gis nga bu daan woo Sine Fall Sine Fall borom baraag bi lay wax <laughs> waaye maam Ibrahima Seye ni moom kooku ëpp naa tudde doom tudde ko Ahmadou mox neen temps la an sin na amaat doom tudde ko teen bii nga xamante nii moom la Sëñ Ibrahima Sarr gasaloon Sëñ Tuubaa muy aynu rahmati aynu aynu rahmati waaw mu aynu rahmati moom mooy sama waajur mhm. la gën a yéemeeti nag ca 1925 Sëñ dafa joxe ndigal ni nan tabax jumaay Touba 1925. 25. ca 26 ja ma Ibrahima Sëy am doom am euh, yàlla wërsëgal ko doom muy soxna juma di woy juru Cheikh Mouhamadou Mourtada ak soxna maam Fatim Mbacke Fadilu ak so euh, Cheikh Mouhamadou Yadaali ak soxna maam Awa Mate yàlla dem. sama sama maam ja bëggoon na lool ko juma juma ji 25 lan joxe ndigal li ba mu ba mu ko tuddee juma dani nan koy wax fàkk bi boobu jumaa ji dañ ko fàkk rek ni nan koy wax fàkk bi bu jumaa ji taxawee ñu di ko wax jumaa mu ne comme firiñam bi wax na jumaa jumaa ji dana am mooy ku mag turandoom loolu pas-pas la ci Serigne Touba. am soxna soxna jumaa sëy moom ak jumaa ji moom ak jumaa ji 1926 la te jumaa ji 25 lañ joxe ndigal li 26 mu gane àdduna jumaa ji ñi ngi ñi ngi def pose première pierre 1934 1934 waaye diggam ak jumaa ji lu rëy la euh, soxna jumaa moomu Euh, moom la tuddee jumaay Touba waaye diggam ak jumaa jeet yëmut foofu diggam ak Touba ak diggam ak kii maam mboolem lim am moom xam nga li Sëriñ Touba waxoon ni maxat mahabati yal maxtaaru ah maam yàlla faral na ko bëgg gi mu bëgg yonente bi xubbul maxaani wala ahliina wala wala daa moom yooyu yëpp da ko faroon tuddewut mag doom tuddewut rakk doom tuddewut baay doom tuddewut lenn doom tuddewut kenn doomit it ku dul Sëriñ ak ak lu aju ci Sëriñ Touba kon noonu mu doon tuddee xasida yi tuddee aynu rahmat yi tuddee soxna jumaa barab bi ñu denc Serigne Touba tudde na ko doom muy rawdatu rawdatu muy baraag ñu ko daan wax baraag na Fat Ndiaye ko jur tudde bépp bépp gi nga xamante nii moo ne woon ci jumaay Touba bi Serigne Touba wër dëkk bi garab gam toogoon te yàlla xamal ko ni ko fii mooy dëkk bi te seen muudu xarañang bu sa wax ni Touba dëkk la boo xamante nii nit yàlla yu bari dañ koo bëggoon yàlla suuf si mu tànn ci nit yàlla yooyu kan moo koy dëkk Sëriñ Tuubaa nee suuf see ma tànn garab gam toogoon ba ko yàlla xamal ni ko fii mooy dëkk bi garab googa euh, maa Ibrahima si tuuti garab googa ban ko goree bàyyi inam nee na ban goree garab ga ba ci ëllëg sa la doom ji mu ko tuddee bépp nelaw li may wax nii mi ngi ci mën naa teg kaset boom si nii bàyyi inam moo ko ci nettali. waxaatal loolu nga ne. garab gi mu tuddee bépp ban ko goree ci ëllëg sa la nelaw. kiñ ko tuddee ci la nelaw. waaw ki ko ma Ibrahima say tuddee. yemu tudde bépp waaye euh, euh, jëmmi jumaa ji sooro xubba bi xubba xubba bi tudde na ko doom mos ngaa dégg loolu xubbab jumaa ji tudde na ko doom boo demee ci barabu Sëriñ baa am na fa néeg bu ñu tudde baytillaahi ci xubba bi euh, nekk jot Sëriñ Tuubaa tudde na ko doom bayti mhm. foofu la ko tudde yemu ci tudde na sooroor sooroor moo fi ne nii mooy xalifa bi waaw waaw maam sooroor nu koy nuyu baax waaw kon moom yemul ci tuddee xaside yi waaye li bagage yi sëriñ bi loolu nga ko doon wax ci tàmbali bi boo demee mu dégg ni sëriñ Tuubaa dem na baafale galwaa di ay seex tudde na leen <laughs> baafali la ak galwaa waaw ay seex ay lan waaw ax bëptu ak midaadi ay seex lan tudde na leen tudde na jaawartu jaawartu tudde na fulkul masxoon mhm. tudde na euh, ci mawaahibu tudde na xat fakka kablaa mooy man kin ma tuddee mhm. tudde na jënaatu haadi waaye tuddee na tamit euh, malaktu bi fadlillaahi maakaana yustaha <laughs> tudde jaalibatul maraaxib ñi may wax ñëpp am ñoo xamante ci jamono Sëriñ am ñoo xamante ni ah, euh, mën naa ak njabootam ñaara ci def muy sooroor ak soxna malaktu bi fat fadlillaahi maakaana yustaha soxna malaktu waaw kon tudde na xasida Sëriñ Tuubaa yi ah tudde bagage yi Sëriñ Tuubaa ba dëkk yi Sëriñ Tuubaa demoon sax mu tuddee leen da leen sëñ Xaat Faak eh, xam naa ni eh, murit yaa ngi daloo tey mbind moo xam ni pas-pas it nañ ci dàgg da man nag bi nga tàmbalee wax rek ba fi sëñ Ahmadou Mouhniyane bàyyee jox la ne la duggal gànnaar ci lay doog a am man catégorie gu ma ko boole ndax gànnaar naar yi dañoo préparé woon pour déstabiliser yoonu murit dispersé ko ndax tubaab yi dañ ne ñoom ay jaayil lañ yóbbu sëñ bi waaye nañ ko yóbbu ci ñi nga xam ni bu dee xam-xam ñoo koy ëpp nit ñu ñuul ñi moo tax sëñ bi tànn ñiy dem gànnaar boo déggee sëñ Moussa Ka di wax naan e, ba mu fa bàyyee sëñ Modou Lo na mu ne wax jile nag sëriñ xam ma Mouhamadan Touré moo ma ko xibaar mooy bëkk néegu Bamba moo dem gànnaar gaaw ba bamba dem dibéer ji la fa ñëw di dugg bëgg a dugg kurée kër baraañu sëriñ Modou Lo na moo ko aaye wan ko mbindam sëñ bamba moo ko baare loolaa taxoon mu toog fa taaxiyaayu mbuuj sax fa ndigal ba am fa soxna faati mbuuj waaye sëriñ bi defar yoon wi tax na ba mu tànn ñiy dem moo tax toggikat ya ne woon gànnaar xam nga wax nga ko sànq sàmmkat bu raw naar yi mooy maam Ibrahima Sëy kon bu ne ma wax la gaaye santu daam jëm gànnaar te ànd ak sëñ Tuubaa te ñëppay jàmbaar na njëkkeel rakkam sëriñ Afia moo jiitu sëriñ Maxtaar Penda mooy loxoom di woote seex ma sàmba xëri Jóob seex xëri ak njóogu njaay ma xëri ñang may toggi ceeb ñooñu rek mën nañoo dàngal naar yi kon bu suñu Musaa Ka ne seex Bàmba moo raw naar ya jàngoon ba wan na lef ñu weex ñaa ngi koy ñaa ñaa euh, raamal ñu ñuul ñaa ngi daw di jëf te noo yey nañu mbàkkee aye bur yàlla moo ko def ku réer bay ginnaawal seex Bàmba nee leen ko moo di def kon yaakaar naa ni wax ji saraango ko kon sëñ Moustapha ku tuubul bu tuubul ba dee dem naari jaanam ya matt ko euh, kon yaakaar naa ni euh, côté boobu nga ñëwee baax na léegi sëñ euh, Ahmadou Ahmadou Mouhniyan léegi lii nga xam ni sëñ xat faaka ko nga xam ne na émission lan nga ñu ci tegalaat loo xam ni dana dàbbiwaat suñu pas-pas dëgg-dëgg ci ji waaw ci jëmmi Cheikh Ibrahima Seye danañ ci wax euh, loo xam ne digganteem la ak xaadim rasul ndax sëñ bi mhm. ni nga ko waxee léegi rek mooy ñam tànn ñam ñi ko fekk sarsaara mu téye leen da leen a tànn loola danañ wax lu tax moom mu jëloon ko mu nekk ab sàmmkatam ndax xam nga sàmmkat dafay mën a téye secret sàmmkat dafay mën a muñ sàmmkat day gis te du wax sëñ bu mag bi mu ko tànnee bu nekk sàmmkat dañuy delluwaat tuuti jëm ca kanam ca ginnaaw ca kaw gis nga yonent yàlla Moussa alayhi ba nga xamee ne jëf na jëf joojee muy muy muy kam doon atte te rey ko ñu koy wër mu daw ba mu dikkee ba egg Madiana fekk fa ay doom yonent yàlla Shuayb ba mu feeñalee ci ñoom yenn kéemtaan kenn ca doom ya daf ne yaa eh, wa qaalat ihdaahuma yaa abat istajir inna xayra man istajarta alqawiyul amin kon yow bàyyi jëlal kii ndax am na lu ñu gis ci moom waaye jël ko mu sàmmal la ndax kii boo ko ndax ki gën ci ki ñuy jël muy sàmm mooy ki nga xam ne dafay am kàttan waaye dafay nekk ko amiin koo xamé ne ku ñu wolu lay doon ku mëna a secret ndax da am lu mu waroon mission bu warona yor mhm. lolé nak kon day wat ci señ bi bimu mu ma Ibrahima Sëy ko samal ma sama juruk bop mu koy samal juruk bopam gis nga la cey doon juggé da dan def bu samé ba nopi ba ngon da dan rat ci mewma ma ko ku tedd ki waaye soxna malaktu bi ma maakaana yushtaha wax nañu ne su ngeen koy netali len daan na jël la soow ma di ko indil sëñ bi ba ba ba mu egg ci moom mu jox kooko daal di dëpp waaye bu leen wax ne sëñ bi doon na ko jëfandikoo ndax maa Ibrahima Seye mos a nettalee sëñ bi daan na ko jëfandikoo kon daneen nañ yem foofu ñun wa ñi ñi nga xam ne ñoo askanoo ci ndax amuñu xissa boo xam ne dañ sëñ bi da ko daan jëfandikoo kon daan na jël di ko jox waaye sëñ bi da ko daan nangu musu koo jox mu bañ a nangu lu tax sëñ bi daawul nangu eh, eh, daan ko nangu sëñ bi dafa am benn bis sëñ xaadi ma jaxati kale am benn lu mu ko doon binduloo ndax xemeem loxo bu rafet ba daal ñëw ci sëñ Momar Anta Sall ne ko sa doom ji damaa bëgg mu bindal ma mu daal di koy woo mu daal di ñëw bi sëñ bi egsee mu gis kenn xar rek daal dagg ne ko xar gi day boo ma ci bindalee dinaa kontaan ndax rafet na lool bindal dama bëgg nga am loo ma ci bindal daal ko koy wax sëñ bi daan ne ko man dey am naa ak xalima goo xam ne su ma la ci bindalee tamit yow sa xol dina sedd muy wax rek sëñ bi daal di jóg daal di dox dox bu dëgër wan ko ginnaaw sëñ Momar Anta Sali daal di ree ne ko gis nga kii mu ne ah mu ne ko xali lii muy lii lii mu la wax ci xalima gi dangaa tooñ dangaa dagg xat goo moomut xat goo moomut nga dagg jox ko moo tax nanguwu la cee bindal bàyyil mu dem indi loo xam ne lew na ko mu bindal la ci loolu la wax sëñ Xaadima Jaxate la kon itam ba mu ko tànnee moom mu koy sàmmal loolee la ko déy ngir jur googee bu ñu bu ñu ruur bu ñu daan mu gittax guñ moomut ba meew ma cay génnee bu ko joxee sëñ bi sëñ bi nangu ko kon kon il faut mu nekk koo xam ne day am ci moom confiance mm-hmm. kon confiance boobu la joxoon maa Ibrahima Sey ba maa Ibrahima Sey doon ko sàmmal firnde ji mooy am na ñenn ci fere yi ci mag ña ñoo xam ne dañ daan ñëw ci sëñ Tuubaa di sàkku ci moom ngir mu ngir ngir sàmmal ko sëñ bi ne leen déedéet Ibrahima Sey moomal sàmmal ndax loolu ak jagle la waaye da caa teg ne yéen yéen itam kenn ku ne jox teg jox naa la ak jagle kenn ku ne defal naa la sag jagle kon moom lii ak jagle la ci moom kon maa Ibrahima Seye rek moom mooy ki nga xam ne moom mënoon a sàmmal sëñ bu mag bi waaye sàmm googee dafa sar ndax da ko doon waajal moo tax gis nga sëñ bi bi mu làqoo ñu andi ko njaareem bis biñ ko bis bi mu ne bis bi mu ne asalaamaaleykum suufu Tuubaa daal di fay fanaan bis boobu la maam Ibrahima Seye fanaan ca barab ba ba ba bi muy wàcc musta jëlal benn bis. ci barabu sëñ bi mag la nekkoon. moo fa daan moo fa daan moo fa daan njëkk waaye moo fa daan mujj ndax itam dafa am yoo xam ne xam nga barabu sëñ bi boo ko déggee am na luy xew am na luy xew. Mhm. ndaxte sëriñ Imnaan Abdoulaye Faax ko la man nettali na ma nee na ma. man ba nekké ci barab ba momi nekkon na ci mune bama nekké ci barab bi tuba bi daan nañ fa ñew daan ni ma yow ci barab bi nga nekk mune waaw ñu ne ki ki nekk ci teud teud fi ndax ki teud fi ndax do tok ba ci yag mu daal di jóg am lum la doxlo nga nga dem doxi ko daal di ñëwaat muy khadim rasul te bobu khadim rasul nekkatul sayet ci kaw ci kaw suuf waye tuba bi mënu ñoo gëm ne señ bi wàcc na moo tax ñu ko daan wax na ko yow mi nekk ci barab bi ndax moom mii daawul jekk du jekki-jekki génn am lu mu la wax nga doxal ko ko ñëwaat nee na sëñ ina sëñ ina na doola la woon daan leen ah loolu de xawma ci dara <laughs> daal di noppi kon nag yéeney tubaab bi nekkoon na jëmm ju tedd ji bis bu génnee mu am fu ko yóbbu foo xam ne fu mel ne tugal ngir ku ko soxla danga nga da ndax sëñ Tuubaa jëmm la joo xam ne àdduna bi noo koy soxla ba fa jëm kon da ngay gis waa waa waa waa Sénégal ak Afrique ak ñu xam ci monde bi ndax ñoom xam na nit ñuy defee nit ku baax niñ koy niñ koy nit ñuy defal promotion jëm jë jëm ju tedd ja kon da gis ci àdduna bi ñuy dem di di ko di ko siyaare ji te loolu dana yokk koomu France mm-hmm. looloo taxoon ñu am yéene jooju moo tax sëñ Modou Moustapha mas nañ ko convoqué njaarim bi ñu ko convoqué mu jaar ci sëñ bi sëñ bi ne ko demal jox ko ndigal bi mu ñëwee sëñ bi ne ko ana luñ la wax mu ne ko dañ ne ma bu boobaa fii la sëñ bi daan ne ko bu boobaa fee la loolu mooy lan dañ ne ko bu sëñ bi wàccee njaareem lañ koy denc ndax dañoo bëgg bu ñu ko dencee njaareem xalaat ko waay waaye sëñ waaye waaye sëñ bi ne leen bu boobaa fee la te loolu histoire bu rëy la boo xam ne ni sëñ bi demee Touba buñ la ko waxee sax dangay ngay da ngay yéem kon jëmm joojee kon dangay xalaat ne tubaab bi mi nga doon topp waaye sëñ Ibrahima Sëy amoon na farlu goo xam ne fay nek ci barab lu ñew fa la koy fekk mo xam nit la mo xam jinne la ndax dinañ netti ben xibar bo xamne ne na na euh, dafa am bëgg dafa euh, ben guddii kilifa gu mag ci sëñ Touba nek deretam dafa bàyyi ba xaju guddii mu ñew di siyaré ci ku bax ci ku bax ki am lu lu lu lu gudd lool ne ko bul exi mu melne ku taxaw fekk Maam Ibrahima Seye dafa duggoon ci biir barab yi bi mu génnee gis ko mu ne ko sang bi lii lan la mu ne ko leede moo ne ma bul egsi mu ne ko nga war a siyaare ji sa baay bu tedd bi mu ne la doo egsi daal koy jàpp ne ko nañ dem loolu ne bëre jàkkaarlook sa sa Ibrahima Seye ak ak jëmm ju tedd joojee mu ne leen bu leen egsi Maam Ibrahima Seye tëb song ko ñoom ñaar ñuy jóg di daanu di jóg di daanu ba génne ca buntu jumaa ja fee buntu jumaa ja féete kër sëñ Saaliwu fa lañ daanu loola rëcc daw mu daal di ñëw ne ko kaay siyaare sa baay bu tedd bi kon Ibrahima Seye ñu naan léegi jinne mm-hmm. moo xam jinne la mm-hmm. moo xam tubaab la waaye jëmu ji tedd ji dara du ko mm-hmm. jege waaw loolu nag mooy mooy mooy mooy jëmmi càmm ga ndax sàmmal na ko ba muy ba ba mu yoree waaye jëmu di ja sàmm na ko ba ba Tuubaa ñëpp ñeme tabarkalla mu door mu door fee bàyyi koo dem kon Ibrahima moo dox loolu kon xam naa ñi ngi ñëwaat ci yow léegi bu ko defee ñu ñëw ci suñu sang su baax si ma njëkk ci Cheikh Mamadou Fadal balaa sëñ Moustapha di ñëw ci ñaari kàddu rek ndax yaakaar naa ni bu ngeen toogee ci jotaay bu mel nii ñuy waxtaane seen maam du ñàkk lu ngeen ci war a mën a euh, dolli ndax euh, sëñ Maamoor wax na ko léegi euh, sëñ Touba moom ña àndoon ak moom wala ñam yaroon wala ñim jur kenn mënatul mel ni ñoom kenn mënatu leen a wuutu waaye manes na barkeelu ci ñoom manes na leen roy manes na jang seen dund fàttaliku ko ba man aksak dolli sa ak sa sa murit ak sa dogu euh, yaakaar naa dégg nga ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk li mu wax ci suñu maam ju baax jooju lan nga nu ci mën a rek Cheikh Mamadou Fadal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki yi di jital ci nuyoo bi Cheikh di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te waaye di ñaanal suñ kilifa gu baax gi nga xam ne moom lañ nekk ci barabam muy Cheikh Mouhamadul Mourtada di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér moo ko magam ju baax ji sëriñ Abol Baraka ak mbooleem jabootu sëriñ Fàddilu gépp di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal plateau bi di sëriñ Mamour Mbaye yoonu géej gi ak Cheikh Mouhamadul Moustapha kan mi moom it di suñu wëlëre di suñu xarit macha allah waaye di jiital ci nuyo bi sëñ Makki yu fay mi nga xam ne moom it mooy njiitul liggéey bi mu mhm. ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne moom la taaw suñ borom defal ko ci ndam lu kawe te suñ borom yokk télé bi itam mu nekk ay télé tele yu bëree bëri tey rafet nañ ci njort ndax jéegooy sëñ bi rek ci lay jóg di xeeñ ci du ci jox saa su nekk di nuyu sëñ Moustapha Ndiaye yoo nga xam ne moom a féete càmmoñ ak Cheikh Mahamadul Fadal moom sëriñ ci daali sëñ Ahmadou Moxniyan ak suñ xat fàkk kab la macha allah. ci kàddu yu am solo yi. xanaa moom liñ ciy wax du bari. ndax xam naa ne ñi nga xam ne ñoo yor euh, liggéey bi. liñ ci war a wax lépp moom ñoom danañ ko ci wax. xanaa ñun dañoo ñëw rek. ngir waaw dañoo ñëw rek ngir dara yàlla jotaay a marqué ci sëñ Ibrahima waaye sëñ <laughs> Ibrahima moom moom taalibe gi daal moo ñu ci gën a marqué. Ah. waaw muy taalibe gi nag moo ëmb lépp rek. su ko defee nag defe naa ne waxkat moom saa bu demee ba am ñu ñu ko waxal rek ginnaaw yàgg naa wax mën naa noppalu nag waaw te bàyyi ñu ko ñu ko mën a waxal wax wax wax ji kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi am mbégte mu yaatoo yaatu te xam ne fii ngay ñëw daal moom kërug taalibe la sëñ Ibrahima Seye moom léppam sëñ Tuubaa ko jox ni ko sëñ xat fa waxee rek maham mahabatiyal muxtaar saydina xubbil maxaaniya wal ahlina wal wala daa googu euh, sëñ laat leeraloon na ko waxoon na fi bis ne euh, sëñ Tuubaa lu mu jur yonent bi la ko tudde daal di lim Cheikh Mahamadul Moustapha lim Cheikh Mahamadul Fadal daan na nag nit koo xam ne loo jur tudde ko kooku deselutoo ko dara waaye sëñ Ibrahima Seyit deselul sëñ Touba dara tuddewul mbokkam tuddewul lenn lépp lu mu am rek tudd na ko sëñ Touba ak jeexiti sëriñ bi dafa naa nag kon ñooñu su ngeen ñëwee ci ci ab pàkkam nit ñi ngeen fiy fekk li ñu sëñ Maam Mor laaj ñun ak taalibe rek moo ñor képp kuñ gis nga di ko doxe itam dinañ mën a ànd ak yow ca loola soko amutit lo meuna amine ñun meun nañ la baag lool barke borom Tuuba waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati mbake Balla jere xam xamna ni ki may bëgg jox kàddu gi sëñ Safa mom moy leeru soxna mam fati Juma mom Cheikh Mat Fadal muy sëñ Safa njay way jurom nak sëñ Mor njay pak lambay fan yi rek ma ngi naan sëñ modou mi khalifa momit war nañ ko wone taalibi ga njàmbaar ga fit kon mom waxuma la bu ko soxna fati meññu meññutoon way jurum bu góor rek def na ci yoon wi loo xam ne ci digganteem ak Serigne Saliou digganteem ak Sëñ Abdou Lahat digganteem ak Sëñ Abdou ak doomi Sëñ Touba yëpp ah, ak Sëñ Fallou ba ci Sëñ Fallou ndax euh, soxna maam Faati mii baaxam tabeem bëggam lu baax nun tele bi dañuy toogam yàgg di waxtaani Sëñ Touba ñu toogam yàgg gis ñu indi xéewal ñu ne lañ soxna maam Faati nee na àddiyee Sëñ Touba café beñe lu ne lu mu am rek daf daf koy roñ di indi rek kon noo ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi kon sëñ Moustapha euh, sa maam jii nuy waxtaane nga xam ni xam naa ni sax waa kër sëñ Fallou moom euh, ak waa kër Cheikh euh, Ibrahima mii ku leen defutoon nii duñ ci xam lii ndax ñoom doonu taalibe daa gën da leen a gënal di wanewu waaye fi jamono toll pas-pas di bëgg du ma ni raar ñenn ñi di ko bëgg a ñàkk kii daf ko dañ ko war a jàngale école yi dañ ko war a dugalaat daara yi xamaat ko ba ñu xam ni sëriñ bi ña àndoon ak moom naxuñu ko woon waaye moom bi mu leen di fay naxu leen ana jëmm jooju loolu ci mën a indilaat ci waxtaan yi nga ci gi nga fi dégg sa contribution dolli ko ci lii nga xam ne jot nañ ko fee wax ndax sëñ Mor Gueye danañu jàngal xasida ndax sëñ Mourtada ko yar mi ngi fi te it jotaay bi dana ko ay sa tamit ñi ngi fi war a kuréel kon na xam naa xaw ma xasida gu sëñ bi tuddee Eh, doomam la ñuy jàng wala dara waaye ci kanam tuuti loolu dana jëm ñoom ñooy tëj jotaay bi ñu ànd kook sëñ jibi xulle ba tey sëñ Moustapha bisimilah. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy nuyu ñëpp di yi ñëpp tey balu àq te di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Serigne Mountakha Khadim Rasoul moom Cheikh Mamadou Bachir ñu fi teew toogaayu Cheikhul Khadim ñu maase ñun ñëpp ñaanal ko suñu boroom yàggal ko te wéral ko ba yéene yi suñu borom matalal ko ko na mu ko bëggee ba mu sob ko ak mboolem njabootu Serigne Touba ak mboolem seex yi ak mboolem taalibe yi ak ci turu Serigne Abul Baraka moom Cheikh Mamadou Fadil ak mboolem njabootu Serigne Falilou waaye nag di leen nuyu tamit ci turu Serigne Mourtada mi nga xam ne mooy borom kër gi di sunu kilifa te ki ñuy waxtaane di maam ci moom loolu mbégte la ci ñun tey ñuy wax sëñ Ibrahima Seye ndax liñ fi wax duñ ci yokk waaye mënees na cee sof li Cheikh Mouhamadul Fadel waxoon ne seen jumaa ngi noonu nunguwul toj waaye nungu na sof waaye liñ fi waxtaane tey ci sëñ Ibrahima Sëy sof rek lañ ci mën a def waaye nag di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sooroor Sëy ak soxna Malaktu bi Fadilaahi mi nga xam ne ñoom la ñuy xoolee sëñ Ibrahima Sëy tey di nuyu sunu nijaayu bopp yi wala sunuy baay ci ñenn ñi di Ahmadou Moxniyan di doomu Ibn Amna Abdallahi ak xat fàkk kabla di doomu Aynu Rahmati comme ni nga ko waxe euh, loolu la li ñu gën a yitteel nag ci sëñ Ibrahima Seye nu ko sëñ Fallilu waxee mooy taalibe ki ndax loolu la Cheikhul Khadim xamoon ba woo sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fadilou ak sëriñ ma Massamba ak sëñ Modou Roqee Bousso. di waajur ci ñenn ñi di mag ci sëñ ma Massamba di nijaay ci sëñ moo Modou Rokhaya xamal leen la fa nekk ak lay tax a jariñ te loolu weesu wutoon ak taalibe tey jii ku raw ci Serigne Touba rek ci taalibe nga rawee sëñ Ibrahima Seye loolu la xamoon ba mbooleem lim liggéeyal Serigne Touba ba ko sëñ Touba gërëmee sant ko ñaanal ko bëgg koo defal ni mu defal ñu baax ñii ko toppoon ñëpp dana ko loo may defal nag ma ko dencal ba yow mal xiyam bëggut a feeñ ci dara. lii ñu def nii sax jamono ko laaj waaye bëgg ko kon dañ ciy sant bu baax nii sëñ Ahmadou ak sëñ Xat Faka wax li ci firnde rek mooy seen ñaari tur yi lu palpable la loo xam ne dañ ciy teg bët ndax soo ne amul teñ ne la kii Xat Faka la tudd doomu ay Aynu Rahmati la daan ne kee Ahmadou Moxniya la tudd doon doomu Ibn Amna Abdallahi lu wér la du lu ñuy làmbatu mm-hmm. moo waral Serigne Bassirou moom Cheikh Mamadou Fadal dafa am bis muy seet si Serigne Mourtada bi ñu wootee ñu wax ne ko mi ngi kër sëñ nijaayam sëñ Aynu Rahmati ndax dafa amoon am tudd sëñ Aynu ba mu ñëwee far sëñ Mourtada jébbal ko lépp ndax ñoom ni ñuy toppante mooy ak taalibe bi Serigne Bassirou bi mu tuddee ba noppi dafa ne su yoonu murit amoon tey journal lii dañ ko war a bind te xam ne archive la dañ ko war ndax liñ koy li tax ñu koy bind mooy Aynu Rahmati moo am am tudd ñaar ñi leewu doom ji war koo tudd si mooy jaalibatul maraaxib mooy njëkkali malaktu bi fadlillaahi gunge ko ana kuñ doom ji jaawartullaaha kon loolu dara génn ci sëñ Tuubaa ilaaha sëñ bi sëñ Basiiru dafa wax ne hmm. su amoon tey journal dañ ko war a bind ndax archive la ndax tey jii aynu rahmati moo am tudd ki leewu doom ji jaalibatu maraaxib la ki ko gunge malaktu bi fadlillaahi kan lañ tudde doom ji jaawartullaaha <laughs> kon lii rek doy na ci lépp nga am loo wax nag loo xam ne ku ñuy tudd ku ne am na ko tax ñu koy tudd muy alaaji Mor Ndiaye mhm. ñu gën ko xam ci pàkku Lambaye di taalib Serigne Touba nga wax ko léegi mhm. moo tax ñu am sañ-sañu sax tudd ko mhm. waaye dafa rabbaloo sëñ Ibrahima Sey hmm? ndax moo ma nettali ci làmmiñu boppam wax na ma mus naa ñëw tuubaa ci année 1950 yi xamu fi kenn bu duggee ci barab bi itam lam ñaan sëñ Tuubaa mooy maa ngi lay ñaan ci sa barke ma am xarit bu dëkk Touba ma xam ko mu xam loolu la ñaanoon Touba kon loolu pas-pas la ginnaaw bi mu génnee la dajeeg sëñ Ibrahima Seye sëñ Ibrahima Seye xamu ko moom xamul sëñ Ibrahima Seye mu yëkkati addiyaam jox ko ko wan ko ginnaaw sëñ Ibrahima Seye ne ko ndongo li noo tudd mu ne ko Mor Ndiaye sëñ Ibrahima ci boppam moo tibb ci suuf si jox ko na ko barkeelu te boobu ñoom xamante ci saahir ñuy dem ba jëmmi jamono gannaaw da daan yëngu ci commerce mu am néeg yoo xam ne euh, Mamadou Dia mi fi nekkoon mm-hmm. moo ko bëgg moo ñëwoon ci sëñ fal Fallu gis néeg yi mu rafet lool mu koy taamu ngir sëñ Fallu defal ko ay nu boobu daa bokkoon ci dongo yi sëñ Fallu ndax moom la sëñ Ibrahima Sey jëloon jébbal ko moog mm-hmm. soxna jumaa mm-hmm. waaye ci biir liggéeyub sëñ Fallu rek da ciy feeñ dongo yi ñenn ñi daf leen a dugaloon ci maçon ñenn ñi ci menuisier yi ñenn ñi ci ferraille tey jii koo gis Touba ñuy liggéey soo xoolee taarixam da ngay wax ne ah kii de taarixam mo maçon la waaye fekk na dongab sëñ fal la boo xam ne sëñ fal du ko jël jébbal ko sëñ Touba ngir mu liggéey di tabax jumaa ji ba tey jii ñu nekk ay entrepreneur sëñ Aynu moomu yàlla dogal mu bokk ci njaboot googa bokk ci liggéey ndongo yi waaye nag di menuisier moom moo daan liggéey nag yooyu jamono yooyu ba muy liggéey néeg yi ba si Mamadou Dia sàkk loolu ci Seigne Falilou mu woo Aynu Rahmati lettre baa ngi nii ci sama téléphone mu wax ko ne ko mu am ci jaaxle ndax Seigne Fallou booba xamul kenn Dakaru xëy na ci ñu mel noonu euh, Seigne Abdou Mbacke Rudis moo fa nekkaloon Seigne Fallou wax ko ne ko am nga donga boo xam ne de ma nga Dakaru te soo ko joxee ndigal dana ci def kem talay kattanam mu ne ko num mu tudd mu ne ko Mor Ndiaye mu jël xalifa bind ci yow Mor Ndiaye man alaaji falilu maa lay booleek suñu ay nu rahmati moom yi dafa am ñaari néeg yu may liggéeylu fa bëggoon nga toppatoo ko lu ci jëm nga koy xam mu koy xam ba keroog mu mat ma fay la waaye liggéey ba ba mu matee nag xisa bu gudd la ba mu matee mu ànd ak sëñ Aynu ak donga yee ko doon liggéey ñëw ci sëriñ Falilu bi mu ñëwee ci sëñ Falilu sëñ Fal jébbal ko sëñ Falilu daal ne ko li liñ ci def yëpp nangam la lenn li maa ko moom mu lew ma doom def naa ko addi Sëñ Tuubaa waaye li ci des tubaab bi moo ko moom moom bi ma koy nettali sax dafa wax ne su doon tey damay joxe lépp <laughs> waaye Sëñ Fallu lan la def ñaan gam ñaama noom Sëriñ Tuubaa te Sëñ Fallu lu fekkewu koon ci zaahir moom la ko defal mooy da ko xëcc ba mu ñëw mu xëcc ay nu raxmati ba mu ñëw mu ne ko boole naa leen kóllëre adduna ak alaxira loolu moo waral man ñii di doomi soxna Maam Faati di doomi Alaaji Moor bokk ci sëñ Ibrahima Seye sëñ fal Fallilu mii bokk ci sëriñ Fallilu di doomu sëñ Murtada di doomu soxna Ami Ndiaye moom Alaaji Moor moom Alaaji Moor <laughs> kon lañ ñaanoon sëñ Tuubaa sëñ Fallu seetal na ko ba nag boole kook sëñ Ibrahima Seye ma fekk woon jotaay sëñ Tuubaa daf ko booleeg sëñ Ibrahima Seye ma fekk woon jotaay boobee kon sëñ Fallu mooy euh, sëñ bi jërëjëf xam naa micro bi na dem ci sëñ euh, Galas Fallu Mbàkke moom sëñ Iddaali sëñ bi euh, jotaay bi dégg nga ko xam naa ni sax moom yow nuyoo sax du ma nangu nga def ko ana lan lan lan nga ñuy lan nga ñuy dollee rek nu consommé ko ndax fi mu ne nii moom murit yaa ngi bég waaw ñàkk a seetaan Touba TV ci waxtu yu wurut mbakki bal la. jërëjëf sëñ sëñ Mamor maa ngi nuyu bu baax di nuyoo ñëpp di siyaar bu baax a baax di soof sama nuyoo ci nuyoo ñu jiitu woon ñëpp di ñaanal Cheikh Cheikh Modou Mourtada moom mi nga xam ne mooy kilifa gi suñu borom yàggal ko fi lool ta tànd ak wér naa li fi li fi mbokk wax moom. Euh, doy na sëkk man nag sëñ sëñ sëñ eh, ñaar rek laay wax xam naa du gudd ci li sëñ Ahmadu doon nettali ak li sëñ Xat doon doon wax léegi nii ci xisab sëñ Ibrahima Sëy bi ak eh, loolu nga xam ne xewoon na ca ca gànnaar muy xisab bu bu bu wér xam nga jamono daa tërë ji léegi man ngaa wax dara ñu jàpp ni li ngay wax ni danga ko wax noonu rek waaye xisab bi boo demoon ci kër sëñ am solo jamono ji may wax ak yow bu leen tàllalee micro boo dalee mi ko nag xalifa ba mu nettal la ko boo demee si alaaj Mbàkke suñu alaaj Mbàkke jaxate mi nga xam ne mooy jàngale jàngale jumaa ji suba suba boo fa demoon boo ko tàllee micro bi mu nettal la ko jële ko jële ko ci suñu am boo demoon kër si mu Mamou Niang jamono bii may waxe yow ñu nettal la ko jële ko ci suñu Mourou Mamou Niang ñoom it boo demee ci wàkkar Sëñ Fallu ñu nettal la ko waaye boo dikkee ci wàkkar Sëñ Ibrahima Seyit waxuma la li ci ñuy wax rek waaye suñu xar fàkk mën na laa tegal kasetu suñ inam na Abdoulaye mu nettali la ko bi nga ko jëlee ci ñu am solo kon xisa bi maanaam xisa bu bu wér la boo xam ni maam bëri na ay fuñ fuñ ko fuñ ko ballaloo. beneen bi mooy si Ibrahima Seye comme ni ko si Moussa waxee léegi man damaa jàpp ni maanaam dencub Sëñ Tuubaa la te patrimoine la ci yoonu murit Sëñ Tuubaa daa wax ni kulliyat yi moo jësatoon te àqarat wa xayra xayraatin la dekk du xirat moom léppam maam ay kiimaan la waaye kiimaan bu ne day appam day jot maanaam mu ñëw suñu Tuubaa ay mbiram noonu lay doxe e, te ñaanam yëpp it lépp lu mu bind nee na yàlla da dana ma dama ko jox ba pare ne ma bindal wa annahu jaxala maa katabtu kama katabtuhu wa maa talabtu kon yàlla koy jox ba noppi ne ko bindal gis nga liggéey bi mu doon liggéeylu suñu Ibrahima Sëy ci xese bi suñu xarfaak nettali ba mu ne ko suñu Ibrahima demagul ndax dama ndax dama koy liggéeyloo loolu mu koy junj liggéey bi nga ko defal ci barab bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay secret la boo demee ci xasida ak euh, xasida ak kii ni da ngay gis mu naan euh, bi bi ci génn ko àdduna gi mu naan muy ñaan yàlla suñu borom defal ko ay wéttal ak ñoo xam ni dañ koy gàddeel ci barab bi ci lépp loo xam ne jullit danañ ko ragal wakun nasiri anisi hina ma dafanu gis mi fasitu sama yàllaaw laata du mu mën na mahi maaxadu yura balik fiyan kulama asahu yallahu kullama asahu yallahu xolal lam ci tek wala jini wala jini wajami hal muslimina man man ci nga xamé ni kon ni seigne touba ni mi amé mbirum sahir non lay amé mbirum ma, ma mbirum batin kon seigne ibrahima sahir dencu seigne touba la li tax mané man lay moy ay doom xolal ni len tuddé ñep bo bo bu nit xewon jamono yi jamono ji ne ay ñu xamanté gi ngeen siaré yeen de ngeen ko carrière rek diko siaré waye amul histoire nee na la am na ay nu rahmat mu fi nekk moo xam ne kat 1924 ne ay nu rahmat bi rek kon mi ngi da ngay xam ne lii jamono Sëñ Tuubaa la boo nee jumaa ji day da ngeen ko sos yoo xam ne soxna jumaa sëy 1926 la gën a àdduna te ngi fi Sëñ ba ngi fi wala bi fi Sëñ Tuubaa jugee lu néew ci la gane àdduna boo nee gal Sëñ Tuubaa yoonu géej gi galwaa demu fa ñu ne la am nañ ay tur yoo xam ne day maanaam galwaa ak baafali maanaam ay seex lañ te ñu ngi fi histoire nag ak sorol beeg man histoire nag benn nit ki bindal ko boppam wala ñu ko fekkee nettali ko waaye daam beneen boo xam ne nag mooy moom la ñuy tuddee maanaam témoignage xaw mu la ñu ko tuddee wala ñu ko tuddee maanaam si amam mii bu génnoon fii nii dem ma dikk fekk ab téléphone fii su ma gisee téléphone bi damay xam ne si ama duggoon na fii maanaam tur tur yooyu nag maanaam loolu la joxoñ boo nee suñ sëriñ bi day est-ce que denc nañ ko Touba ñu ne la ñun am nañ tur yoo suñu maam yoo xam ne fekk ne lépp rawdatu bii tudd na ko doom noonu lañ koy defee ci ñu ko suñu xafaaki nekk ci yooyu muy dem nga xam ne yooyu yëpp li moo tax ma ne patrimoine la ci yoon murit waaye denc suñ Touba la maanaam day mel daa am lu ko suñ Touba bëggoon na wan wanloo maanaam ci ci boppam kon maa ngi daaneel foofu ñaan yàlla suñu borom defal ñu toog jërëjëf sëñ Mamor xanaa di am mbégte lool ci euh, émission bi di ci sant yàlla bu baax it ndax boo nekkee ci liggéey boo xam ne da ngay nekk ci di fàttali ñu baax ñoo ñu fi nekkoon te seen dund lépp noon barke ak njariñ euh, yàlla baaxee la ba defal la tawféex joo xam ne da nekk ci biir loola loolu sant yàlla la te la sëñ Tuubaa waxoon ci yonent bi rek muhammadun fardun ya fooxu tas ne waaye wa faax a jamaan maanaam daa am ñoo xam ni kenn leen ko représenté mbooloo mu dul jeex te waxaloon na boppam ni mbooloo mu àndandoo jëf-jëfi kenn de kenn ku jëf-jëfi mbooloo ko gën te ñoom ñii seeni jëf noonu la mel ku ci ne Sëñ Tuubaa da laa préparé woon def la ngay kenn koo xam ni sa pas-pas wala sa liggéey wala sa diggante digganteeg sëñ bi mënees naa dajale ñu baree bari bari bari nga wat leen loolu nag moom ca la bokkoon kon yàlla nu yàlla taas ci barkeem Euh, te dolli ay xéewaleem kon bu ko defee sëñ Mamor euh, dañuy bàyyi rek sëñ Mor Guèye mi nga xam ni sëñ Moustapha mii nag sëñ Mamor bala maa daaneel. Euh, waajuram soxna Mame Faty Mbacké day suñu yaay. Mm-hmm. di suñu sëriñ di suñu wëlëre di suñu lépp yarnu fële ca benn tëli nekk koo xam ni daanaka dool na lu bari ci ñun ci bëgg sëñ tubaa ak tegu ci aw yoon ndax dañ daan dem di ko siyaare. di toog di waxtaan ak moom mu am lum ñuy dolli ci yoon wi ci nu ñu war a waxe ak nu ñu war di defee muy ko bëgg sëñ Touba moom mook sëñ Mourtala mii boroom kër gi benn lañ dun ñaar ci bëgg sëñ Touba gi ci murite gi ci yëg sëñ tubaa ci jooy ci sëñ Touba ñu mën koo seere kon noo ngi nuyu di ko siyaare di ko ñaanal bu baax a baax bu ko defee sëñ moor waaw. moom lañ ko loolu day firnde. waaw waaw sëñ Mor Guèye waaw sëñ Mor euh, Ndiaye Pàkku làmbaay moom yaakaar naa ni euh, ñëpp xam nañ ko El Hadj Mour Guèye mii di jàng xasida moom lañ ko tuddee tubaarkaal ànd nañ fa ba tàyyi nag moom mii ñaa dem seeti turandoom kon sëñ Mor waaw fi la yéen a ah, tubaarkaal la tubaarkaal alhamdulilah kon sëñ Mor bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inam na abdillahi faaxa kulla man abda wa ayudi xayli xusaman أمنا عبد الله فاخ كل من أبدأ أيدي خير خسما على الورى سبع من أبدأ رحمة كل بعد ما داو وجو سبي كرامي بيدر بهد المجادة لجن خلال سل الذي أبى عبادة فلا يسأل والماء ما فلا بركة المختار ليست الخريب ونور وسعاد ليس ينسري أبا إله تعالى إله إمام نور الذي تعالي للمستجد غير من أزال مسارة الله دائن في فسابا أدم ربي بنبي بن درر ليتواجى وسار خرر ملكني ملك نعم المالك مخجل من ختم رسلك نفع بخدمتي لا يلمين بخد ساتوب ولين إن امتداء منتقى سلام خيرا كثيرا بردا فانسربا لخيرنا نالين شرمدا وليسنا ولا كمدا سقلا سيتان كون منتهى زيدو وهو يلاقي ما تخا يدون دار خلاصه بسبي ولو دراسه توافو بين زي سا توافو من لما يدور نون لسا المو بين الحميم والدري على مبارك لا يزال بسري نفع قبل سبحان الله خطر ولا إله إلا الله إلى شوامتي لي يديبو وساقو إلى سوانا ربو لخيرنا هدانا ولا سدا وتتواجه لخير مفسدا رد مكايدا هداي لرداء انت ينتقام قبل من لا جلال ربيع تعالى تلا إلى شوانا دررا فنتلا يخي خلامي الخطا وسوا بخل كفاني اليد ولا مع لو برايا وسمن درناني قبل خادر لمن فكا قبل خد بس فدلا فدرو ولا وانا خد فكا قبل خد بس فدلا فدرو ولا وانا فوجاي احمد مخنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنة جنات وادي نيران وادي فالفضل بادي للخلاي جنات وادي نيران وادي فالفضل بادي للخلاي شاورت بالفرخان ربي المين ملكت نفسي وسيدلين أخرج من دون وسعيد للجنان والخار اللي أولي سبع الجنان xam nga Mor Mor boo ايه ايه ايه émission bi kenn dootu xam nu ñu parce que bu da fekkee xasida gu Seex Ibrahima tuddee doom ñu ne la ñu la koy ñu la koy jox ci suuf nga bëgg koo jàng émission bi kenn dootu comprendre loolu nag li muy laaj euh, man nag maa ngi sàkku euh, journée de prière bu sëñ Ibrahima sëy mi ngi am ah, waaw mais loolu nan koy yaatal delloo ñu ko jox ñun communication yi ñu koy jàllale àddina bi dañoo am loo xam ne da soxna jumaa da ko daan def mhm. at mu jot daan yóbbu ab liggéeyam ci jumaa ji mhm. gannaaw jumaa ji mooy bàjjanam mhm. ñu def fondation boo xam ne fondation soxna jumaa la ndax tur yi waaye njaboot ko sëñ Ibrahima Sey gépp lañ ko bokkal di yóbbu foofa li nga xam ne moom la waa daayiratul xidma di soxla ci ndogu yi ak di taaral di taaral jumaa ji ci wàllu détergent ak ay saaboo omo ak yooyu loolu lañ far def benn yoon rek. jërë ngeen jëfati euh, xam ngeen ni jëmm ji nu doon waxtaanee sànq nga xam ni am na ñaari tur yoo xam ni sax léegi rek la ma ko sëñ Ahmadou fàttali muy bayaxtu fil baxri tasta sa jara wal baxri dun wala awli fa jara te loolu di nga dégg sëñ Moussa Ka di ko tudd ci ay mbindam daal ne nu fob ko yóbbu dund maa yomba moo sàmbalaw be njaay si booru Bamba àll bu lëndëm tudd xilde burki bari xërëm lool njuuma yaa ngee surki bayaxtahu bayaxtahu jooju sëñ sëñ bi tudde na ko leeram fulku maxsuur tamit nga xam ni fulku bi ku ne gis na njaarim ni nu koy jànge xam naa ni bu buñ demee ba àgg ci montage bi sëñ Jibril Xulle dana leen dana ko dugal euh, nga gis ne sëñ Abdul Akim daan na ko taxaw tey jii sëñ Alaaji Mbàkke muy sëñ Fàllu Mbàkke sëñ Basiiru di ko taxaw bu demee ba koy tëj njabootu sëñ Fàllu gépp àndandoog sëñ Aboo Mbàkke baraka ca njaarim dem tëj ko nu fekk fa sëriñ euh,

sëñ fa xat faaka kab la Mor Gueye njàng mi ak sëñ Moustapha mi nga xam ne tey moom laa defoon sama consultant nga xam ne nii laay taxawoo takkusaani Touba TV ndax ñoom sëñ Abdou Dieye ka waaw mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kër gi magi taalibe yi nga xam ne ñooy taxaw sëñ Mourtada moom sëriñ fàllu màggalu Kazu Rajab gis ngeen fii ni muy mel ni mu ko daan dundalee ak na ko ci sëñ Modou bu sooy sëñ mo sëñ Moustapha Falilou ak njabootu sëñ Fallou gépp xam ne sëñ sëñ Mourtada dafa fonk màggal gi waaye njaboot gi itam fonk ko kon laa yaakaar naa dool doy na si kon sëñ Jibril Khoule foofu laay tëjee ci émission bi bàyyeek sëriñ Moustapha kan mu tëj bu tëjee rek ñu daal di àndandoo ca euh, euh, ñële nga xamante ne ñooy yi sëti Cheikh Ibrahima Sëy yi yëkkatil ñu xasida ku ko seetaan yàlla sa aajo faju ci darajey sëñ Tuba asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mamor euh, xanaa di dellu di gën a santaat bu baax borom kër gi rek muy sëriñ Mourtala Mbacke moom sëriñ Fallilou murit boobu nga xam ni euh, ku toog ci moom ab jotaay lu mu tuuti tuuti rek sa bëgg sëñ Tuba yokk sa pas-pas yokk sa lépp yokk ci sëñ Tuba ngir digganteem ak sëñ Tuba amu ci sago te sëñ Tuba ku am sago ci suñ tubaa rek war ngaa xoolaat sa bopp ndax suñ tubaa sago du ci maye dara ku la ci gën a ñàkk sago moo la ci gën a mën a ci fànn yëpp waaye nag doy na sëkk rek ñu ni Cheikh Mouhamadul Fadal mooy waajuram te sëñ Fallou dégg nga la mu waxoon du ma dara bëgguma doon dara naa ne ci biiram rek loolu nag ba ba bam nu ko waxee bi ñu doxee ba ci kanam lañ door a xam ni kenn amul sëñ tubaa rek moo am kon euh, ñu ngi sant bu baax mboolem téléspectateurs yi di sant suñu waajur wi alaaji Mbàkke yu fay nga xamante gis nga ni mu bëggee njabootuk sëñ Fallou gi waaye sëñ Mourtala mi di wëllëram di sëriñam di xaritam ñu di ko nuyu di ko siyaare di ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko sunu kanam te wéral ko ba li mu yéenee ci liggéeyal sëñ Touba ci mboolem fànn yi rawatina télévision bii di Touba TV yàlla bàyyi ko fi ba defee ko nu mu ko soobee sëñ Jibril Khoule mi nga xam ne moom lañ àndaloon émission bi sëñ Mamor ak mboolem téléspectateur rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf malaktu nafsiya wa جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وساسات اللئين أقص من دنيا وسادي للجنان وانخاد للهوى ولي سفى الجنان والاني الأبرار في أخرايا وانخاد لي بلا انتهى انخرايا رافقني إلى الجنان جيم ولي سواي صوصها الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسألني عن جالب العتاب لم ينهني إلى دخول الجنة خير بسارات عريس المنة لم ينهني سجن ولا وعيد وهم ري إلى الجنان عيد أخفى لي السر مسون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وخالني له بأنواه البديع برأني الخالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بسجره وما ليختاره ولي خاد الأخوما بي الله الكرام القراء وببقائي النبي شرا عبادة الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلي خاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله عست خاب عن الكون وفيه فزت ضلني الله على الله بلا تخرري وعمري تقبلا خابت قلاتي مع المسادي مسمني عس بلا كسادي وخاني الباقي به سبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينوني ما باعني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء زمني من كان لي ولي صفى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وتابت قربي نسعى للإسلام عند قربتي لدى الجسائر منير تربتي نسعى لي نور اللسان والكتاب أسمان خدمتي لدى أهل الكتاب jërë ngeen jëf mbokk jullit bi nu defee émission bi ba noppi dégg ngeen ko ci pas-pas ak mag ñi ni ñu defoon sëriñ bi tey nag nu ñëw ci ki nga xamante ne mooy sunu wéyjur di sunu lépp waaye it ki doon waxtaanee di maamam ndax soxna jumaa Sëy mi nga xam ni maam jumaa sunu wéyjur wa ma nga xamante ne moo ne doon leeram moom mii mooy Seex Murtada mbakki moom Sëñ Fàllu ñu gën koo xam ci soxna Seex Murtada Juma. kon yaakar naa ni lum nu dolliwaat ci pas-pas rek nu daal di koy barkeeloo mu doon seen yóbbalu émission bi bismillah Mbacke. ci di Mbacke xanaa dañuy tëdd rek. sëñ bi nee na asalaamaaleykum. nee na mi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp. góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn. di am mbégte mu rëy a rëy ci sunu mbokk taalibe yu baax yii dañ fay ñëw tey ngir doon gëstu mbirum sëñ Ibrahima Sëy nee na seen xol sedd na ci guy ba tax na mi gërëm di ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy defar suñ tey jii ak suñ ëllëg def ñu ak taalibe yu bëgg sëriñ Tuubaa tey jii ak ëllëg nee na mi ngi ziyaare Serigne Mountakha sunu waajur sunu lépp yàlla na fi yàgg lool te wér ci barkeb Serigne Touba ndax jëmm la joo xam ne Serigne Touba rek a ñu ko dencaloon. nee na mi ngi seetaan barki démb waxtaanam woo xam ne Cheikh Abdoul Khadir bi nga xam ne moom dafa gane si woon Ndakaaru sëñ Moustapha Bassirou ci Colobane. ci Colobane. sëñ Mountakha kaddu yam doon wax. ba tey jii rek moom lay wax bëgg Sëriñ Tuubaa rek loolu nag ku am kilifa gu mel noonu dañu ñaan ci sunu borom mi tëlewut dara ci barke xaadimal Mustafa sunu borom dimbali nu rek yàggal fi Sëriñ Muntaxa mu wér lool gudd fan lool lim liggéeyal seigne touba yépp mu liggéeyal ko kay bi na yàgg ci jàmm ak yeneen yu mu sëmb yoo xam ne ñëwagul sunu borom mën na ko yàlla na ko def ci barkeb sëriñ touba sunu sag la sunu ndimbal la ci ñëpp rawatina murid yi moom ñëpp la fi nekkal ci ngay julit di keneen wala leneen rek ni muy doxee mi neex na Sëriñ Tuubaa neex na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neex na sunu borom neex na ñun ñi itam Sëriñ Muntaxa siggil nañu siggil na yoonu murit loola nag ndam la lu rëy ci ñun ñëpp gis nañ ko yàlla na fi yàgg lool te wér saa bu waxee soo def taalibe sa pësteef ci Sëriñ Tuubaa day yokk sa bëgg ak Sëriñ Tuubaa day yokk sa bëgg ak Sëriñ Tuubaa day yokk kon nag yàlla na fi yàgg lool te wér di nuyu ci turu Sëriñ Abo mi fi toogal Cheikh Mouhamadou Fadil yàlla na fi yàgg lool te wér ci turu jëwriñam Cheikh Mouhamadou Bachir ak Sëriñ Abdoul Fatah mi kër gi ñun dañoo fas yéene lépp lu ñuy wax jiital ci sunuy kilifa bañ a jiital ci sunu bopp ndax ñun ay taalibe rek lañ gannaaw nu yooyu yooyu yëpp nag nit ñi nuyu mbokki taalibe yëpp sëñ Mame Mor Mbaye mii ak sëñ Moustapha Kane ak ñëpp ak sëñ Ahmadou Moxniyan ak Xat Fàkk Kabla ak Moustapha Ndiaye ak sëñ Fallou ak sëñ Mor Gueye nee na lii ñu def neex na ko lool. nee na moom sax waru ci woon a wax waaye. li ñuy wax naan. loolu rekk tax mu ciy wax. ndax sëñ Ibrahima Sëy sunu maam la joo xam ne. bëggoon na Sëriñ Tuubaa bëgg koo xam ne. ñëpp gis nañ ko kon su ngeen ñëwee tey. bëgg feeñal bëggam ci Serigne Touba ñi nit ñi gën koo xam loola foog rek ñu am ci mbégte waaye li li ñuy wax waaye li ñuy wax yëpp dina ko déglu waaye foog nag mu sànni ci ay kaddu mënta ñàkk di ñaan ci sunu borom mi nga xam ne ci xaadimal Moustapha mu fajal ñu sunu aajo yëpp defal ñu wér ak gudd fan ak taalibe guñ nangu sëriñ Tuubaa mi ngi wax barki démb rek dafa dégg benn waay benn benn waay di wax ci audio mu naan sama baay daa faatu lu yàgg ma gént gis ko ne ko bàyyi na ngeen nekkee barsax mu ne ko ñi ma gis ci barsax de ñu am jàmm dañ daan liggéeyal sëriñ Tuubaa loola nag wax la joo xam ne ñu bari dañ ko gëm waaye nun nag sëñ Tuubaa gëm nañ ko te kenn mënta tax ñu weddi ko Cheikh Abdou Lahad wax na wax joo xam ne dafa waxoon ne am na ku mokkaloon alxuraan lool bind kaamil def jaafira rafet lool mu jébbal ko Serigne Touba nee na xam na kooka nu mu tudd ak fa mu dëkk di Serigne Touba ne ko diw sa kaamil bi woon na lool fa xari fa farixan kasabtum moom rek nga fàtte sadd mu ne wallahi azim bañ ko ubbee moom la wallahi azim googee ñun murid yi taxul ñuy wax ñi gëmul Sëriñ Tuubaa loolu rek a taxul muy wax waaye nag dafa roy yàlla suñu borom ndax suñu borom su dee giñ ci alxuraan yow yaa sàkk jaam ñi moom leen soo waxee rek doyoon na sëkk waaye foog nag mu giñ li tax muy giñ moo di ñi gëmul bëgg ñu gëm waaye ñi gëm ñoom li gannaaw wax na li mu wax gëm nañ ko <laughs> mooy lii rek kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf mi ngi ñaan ngir jëmmi Serigne Touba Serigne Mountakha mii ñu jàppal ko ci liggéeyam bi liggéeyam bi de. moom de yërëm na képp ku ci bëgg xëpp suuf ndax du yoon dëkk bii dëkkub Serigne Touba la da koo leew doom liggéey ko ngir yàlla ak yonante bi di fi jaamu yàlla dëkk bi ni mu wéete woon jamono yooyu kenn nekku fi woon moom rek moo nekkoon ci digg àll bi di liggéey liggéey ba yegg si fii am ñu dëkk ci dëkk bi di wax wax yoo ne jaaduwut nee na daal mi ngi ñaan képp ku ay taalibe na nga warmal Touba warmal Serigne Touba warmal waa këram te Cheikh Mouhamadou Fadil dafa wax ne ñett dañoo ñuroo te bokkuñu ragal wormal wattandiku ragal yàlla rek moo ko jayoo ku jagoo moom moo ñu bind te tàgguloon kenn suñu fi jëlee di tàggu kenn kooku loolu def rek gis na ko kooku rek moo mat a ragal mooy tabaaraka wa taala wormal nit nit ku baax su dee dund wormal ko su fi bàyyi ko wormal ko wattandiku nag ku sàggan loolu rek mooy dëgg. ngir yàlla nañu warmal dëkk bi warmal Serigne Touba Serigne Touba de. ka bëri ñu ko warmal. yàlla mi ko bind. warmal na ko yonent bi tax ñu bind ko warmal na ko. malaaka yëpp a xubba yi a ñëpp warmal nañ Serigne Touba. kon nag nañ ko warmal Serigne Touba mbindeef la moo xam ne yàlla moo ko bind. def ci la moom loo xam ne def ko ci ku yàlla bind. am li li li am la ñu wax rek. li ñu li ñu am rek la ñu wax. li ko yàlla may. li ko yàlla may. Ah, ku ko bëriwul kum ko may kon nag. nañu warmal dëkk bi war warmal sëñ war warmal waa këram ñii tey la def lu baax di wax lu baax tey jaamu yàlla te di liggéey di déglu ndigal te wattandi ko tere yi lii rek suñ ko defee lépp luñ dugg sëñ bi dana ci def loxoom kon nag jërë ngeen jëf li mu wax li ñu wax yëpp xaju xaju ci sax waaye da doon barkeeloo rek di tuub rek tey jégalu da fas yéene nekk taalibe Sëñ Tuubaa ba faw rek tey ak ëllëg di sant Sëñ Mbackiou Faye di sant Sëñ Mbackiou Faye ak taalibe beeg ñëpp walu yaxab junaana bil Mustafa bil Mustafa da